مقيم السنة مفاتح البشر والأمن والجلجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة عيد ديسوس نعم. مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة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 mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare ci seen télévision bi nga xam ne mooy Mafatihul Bichri TV waaye di leen ziyaare ci seen jotaay wu spécial bi muy plateau spécial boo xam ne dañ ko jagleel ci wàccaayu gàmm gi nga xam ne moom la ñuy amal fële ci Touba Fall ca Saalum incha allah mu war a doon gaawu bi di ñëw le 8 octobre 2022 te ren war a doon cent dixième édition incha allah ñu war seeg ànd ak nag suñuy ñaari sëriñ Cheikh Moustapha Fall di kenn ci njaboot gi sëriñ Mouhamed Ngari Fall moom tamit di kenn ci njaboot gi ñu war a waxtaanee li nga xamante ne mooy gàmmu waaye tamit waxtaane Cheikh Omar Fall mi nga xamante ne daa bokkoon ci taalibe yi nga xamante ne ñoo àndoon ak sëñ Tuubaa te sëriñ bi joxoon ko bis bii di gàmmu jox ko ndigal ngir muti ko màggal incha allah sëriñ bi joxoon ko ndigal eh, ci atum 1915. mu tàmbali gàmmu gi ci atum 1916 ba tey ji incha allah ay sëtam nag di amal li nga xamante ne mooy gàmmu gi boo defee incha allah dañuy jox Cheikh Moustapha mu nuyoo bu nuyoo ba noppi ñu dox Cheikh Mohamed mu nuyoo ñu dugg nag ci li nga xamante ne mooy waxtaan bi incha allah kon sëriñ Moustapha Fall asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Cheikh Abdoulaye Jonn noo ngi lay nuyu bu baax. di wax alhamdulillahi wasalla abada ala lazi bihi lana huda bada mm-hmm. alhamdu wa sukru maan lillahi ala nabi wala dibni abdillahi mm-hmm. alhamdulillahi lazi qad arsala rasulana muhammadan wa bajjala mm-hmm. noo ngi lay bu baax Cheikh Abdoulaye di sant yàlla bu baax di ko commencé ci bayiti sëñ Tuubaa yooyu nga xam ne da ko mu jëmale ko ci yonent bi ngir wane maqaama yonent bi ak fam teg yonent bi mhm. ñu ngi lay nuyu di nuyu Mouhamad Ngaari di nuyu mboolem koo xam ne mu ngi ñuy teewlu mhm. di jiital ci nuyu yooyu yëpp nag kilifaak lislaam muy Cheikh Mouhamadul Muntaqa xalifa général de Mouride. Mhm. di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi mu ànd ko wér di nuyu mbooleem njaboot ak sëñ Tuubaa gi yëpp waaye di jiital ci nuyu yooyu nag Cheikh Malick Fall mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Omar Fall mm-hmm. di xalifa Touba Fall mm-hmm. ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko wàcce wàccuwaayam ak mbooleem njaboot ak Touba Fall gi yëpp rawatina njaboot ak sëñ Omar Fall bi mm-hmm. ñooñu nag dinañ ci lim ñaar ñoo xam ne ay kilifa lañ ca dëkk ba muy bàyyi Tafa Maram ak bàyyi laaj maase nga xam ne ñoo àndoon ak sunuy bàyyi ca liggéey ba ba jamono yi nekk fa ak sëti sëñ Omar Fall jiite liggéey ba kon ñu ngi leen di beral nuyoo ñoom ñaar nga xam ne ñooy kilifaay jumaaja di ñaan suñu borom yàggal leen fi di ziare mboolem koo xam ne mu ngi déglu suñu kàddu rawatina ñi nga xam ne ñoo féetee tund Saalum hànd ak sëñ Malick ak njaboota Sëñ Omar Fall bi ci liggéey bi. kon ñi ñëw fii ci ndigalal sëñ Malick ak ci ndigalal daayatu yi na fas yéene amal fi waxtaan lu jëm ci gàmmu Tuubaa Fall ak lu jëm ci Mawlid. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Cheikh Moustapha Fall. ci nuyo yu tedd yoy nga xamantene def nga ko ñu ngi ñaanu suñu borom mm-hmm. eh, gën la yagal ci kanam gi inshallah allah ba yeen yi ngeen am yépp ci eh, eh, fi nga xamantene moy Touba Fall mm-hmm. suñu borom may leen kattan golon ko agalé ci barkeb sëñ Touba sëñ Mouhamed Ngari mm-hmm. dégg nga señ Moustapha nuyoo nag ñu jox la nga nuyoo ba defee ñu dugg ci li nga xamantene moy waxtaan bi inshallah rabbi a'udhu billahi min alcheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله الذي أرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله وصلى الله وسلم على من قال ألا إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا وصلى الله وسلم wa ala alihi wa sahabatihi wa xadimihi alqail ala azimu layla mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam hmm. kama qala mawliduhu muazamun mubarakun muhtaramun taazimuhu yanxatim ala zawi taqaddumi hmm. wa sallama tasliman mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu hmm. noo ngi nuyu ñuy bokkal jotaay bi Cheikh Moustapha Cheikh Abdoulaye Jonn di nuyu mbolam ñi nga xamne ñu ngi jotaay bi waye jiital ci nuyu bek ziar bi sunu kilifa khalifa général des mourid Cheikh Mouhamadou muntaqa sunu khalifa Seydi Malick Fall ibn Cheikh Moustapha waaye nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi bi Cheikh Abdallah macha allah jërëjëf Cheikh Mouhamed Ngari Fall ci nuyoo tedd yooyu incha allah jotaay bi nii lañ ko bëgg danañ ko def ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi danañu waxtaane gàmmu incha allahu rabbi ñaareelu xaaj bi dana danañu waxtaane kan mooy Cheikh Omar dana ñu waxtaan li nga xamante ne mooy askanam wàllu njàngam fa mu jaar ba keroog nga xamante ne ñëwal ci ci ci sëriñ bi ba sëriñ bi ndigal li nga xamante ne jox na ko waxtaane fan mooy Touba Fall incha allah loolu yëpp incha allah am nañ yéene waxtaane ko ci li nga xamante ne mooy jotaay bi incha allah kon Cheikh bi ñu tàmbali rek ci laaj bu njëkk bi lan mooy gàmmu jërëjëf Cheikh Abdallah hmm. gàmmu day hmm. suñ ko doon tënk buñ ko doon tënk mooy fàttaliku démb hmm. ngir mën a liggéey tey ngir ëllëg mën a jag ndeysaan fàttaliku démb nag sunu borom tabaraka wa taala moo ko njëkkee waaw ñun buñ ko defee dañ ko cee topp ndoor rek dëgg la ndax fàttaliku weesuut soo jàngee ci alxuraan lu bari da ngay dégg mm-hmm. yàlla di wax alayhi salaatu wasalaam watloo alayhim mm-hmm. mooy fàttalil sa gaa yi nàngam ndeysaan gannaaw bi ñu ko jiitalee ci jëmmam ji mm-hmm. Fatli ko ci watlo wazukur wazukur wazukur yu bare bare mhm. biñ ko ne wa wazukur yi lumi jeriñ jëriñ mu ne ndax la khad kana fi qasasihim ibra li ulil albab. bo mhm. boo gisee ma len di fatli ndax yooyee ma len di fàttali mhm. euh, da ngeen ci mën a lu tax ngeen ma defar seen tay ba seen ëllëg mën a nga way watlu yi ci alcorane bari na te lepp gamu la rek gamu gàmm net li histoire ni mal ko waxe fatli ko dem ngir mën liggéey ngir ëllëg da ngay dégg ci alcorane yalla di nettali alayhi salaatu wasalaam histoire suñu mam adam ak wa kërëm nettali na ko ñu baax ngir bëgg mu roy ci nettali ko ñooñ safaan ngir bëgg moytu ko ñaar yooyu rek am nekk ci àdduna roy ak romb mm-hmm. suñ doon def ku gis lu baax roy ko ku gisab mm-hmm. safaan romb ko léegi tey ñëpp baax mm-hmm. watlu alayhim naba abna yaadama bil xaq id qorraba qurbaanan fa tuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al axar qaala la la aqtulannaka qaala innama yataqabbalu llahu minal muttaqin muy histoire boo xam ne doxoon na ci diggante ñaari doomi suñu maam Adama mooy xaabil ak haabil te xaabil rayon haabil ngir histoire bu gudd a gudd la mhm. loolu yàlla nettali ko alayhi salaatu wa ngir mu nettali ko waa këram ngir ñu mën cee jàngee luy tax ñu ci kanam mhm. waaye da ngay dégg ci alxuraan watlu alayhim mhm. naba anooxin id qaala li qawmihi yaa in kaana kabura alaykum maqaami wa tadkiri bi ayaati allahi fa ala allahi fa ajmiu amrakum wa shurakaakum mhm. summa laa yakun amrukum alaykum xumma summa qadu ilayya wala tunzurun nga xam ngir bëgg mu mu ci لجنم ندقر الأبطاعية وأيوتلو الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هويه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا لم تتك فقصص القصص يتفكرون dina tax ñu jëm kanam loolu rek mooy gàmm waaye wax na ko suñu maam ibrahima watlu alayhim naba ibrahima id qaala li xaw id qaala li abihi wa qawmihi maa taabudun qaalu naabudu asnaaman fa nadal laha aakifin qaala hal yasmaunakum istadauna aw yanfaunakum aw yadurun mhm. ah qaalu bal wajadna abaana kazaalika yaf'aluun ñun daal nii rek lañ ko gisee gars yi di ko defee nii mhm. muy histoire yoo xam ne yàlla da koo nettali alayhi salaatu wa salaam ngir bëgg mu jàngee ci Euh, ba ëllëg a mën a jag mhm. waaye it vingt cinq nubuwa yàlla nettal na ko alayhi salaatu wasalaam ngir bëgg mu jàngee seen mbir mhm. waaye lépp rek li ma la waxoon laqad kaana fii qasasihim ibra li ulil albab mhm. su fekkee alayhi salaatu wasalaam ak ni ko yàlla waajalee ak ni mu ko préparé nga xam ne léppam da koo jagal mu soog a ñëw moo yittoo ñi di ko nettali ay yëf yi xewoon démb ngir bëgg mu liggéey ci tayam ba ëllëg mën a jag yaakaar naa ñoo ko gën a soxla alayhi salaatu wasalaam dëgg la moom gàmm day nekk farata ci ñun mhm. waaye di guddi gu màgg it ndax guddi yi ay ndab la rek mhm. yoo xam ne la ñuy def ci la ñuy gënantee mhm. guddi yi ay ndab la bëccëg yi ay ndab la guddi gu nekk nag wala bëccëg gu nekk ndab lam def ci lay gënee ay moroomam ndab li nga xam ne mooy ndabal guddi gën a jamono alayhi salaatu salaam nag daa li gën a moo tax mu gëm ay moroom ndax ndab li nga xam ne dafa def suuf bokkut ak ndab li def ay ceeb ndab li def ceeb bokkut ak ndab li def dugub waaye mi def nag ay kayiti xaalis dix mille ak cinq mille bokkut ak ndab li def or mm-hmm. kon ndab yi ñu def ci la ñuy gënantee ndab li nga xam dafa def aleyhi salaatu salaam nag moo gën ndab yëpp moo tax ñu ci dàkk ngëneelul ngëneel gu màgg ko waaye euh, guddi yi dañuy wax na juróom-ñetti guddi ñoo gën ci guddi yi Hmm. bi si jiitu mooy guddi gën ak jamono alayhi salaatu salaam alayhi salaatu salaam guddeem gi moo gën ci mbooleem guddi yi hmm. bis topp mooy laylatul xadre guddi laylatul xadre mooy deuxième bi moo topp ci gannaaw guddi gën ak jamono alayhi salaatu salaam hmm. benn bi ci topp mooy al isra wal mi'raj ndax laylatul xadre yàlla jàng na ko inna anzalnaahu fii laylatul xadri wa maa adraka maa laylatul xadri laylatul xadre xayrun min alfi shahr nga xam ne borom xam-xam sax tàggat nañ foofu toj ko ba gis ne kon laylatul qadr bis sàngam la war a doon mhm. ci ci ci ay calcul mhm. waaye al isra wal mi'raj guddi googu it mooy troisième guddi ci guddi yi gën ci mbooleem guddi yi mhm. ndax euh, yàlla jàngal nañu ko subhaanalladi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa alladi barakna hawlahu li nuriyahu min innahu huwa samiu albasir mhm. kon guddi googu it ngëneel li mu am mooy aleyhi salaam gàddaay waaye beneen guddi gi it mooy guddi ga arafa mhm. guddi gu màgg màgg màgg la alxuraan jàng nañu ko ngir euh, màggaayam ca histoire yu bëree bëri mhm. waaye nisfu saabaan mooy cinquième position bi nisfu saabaan mooy euh, bis mooy guddi gi wëlbatee woon xet xebla gi moom moo ko jox ngëneel googu bis mooy guddi laylatul jumaa mooy juróom-ñaareel bi mm-hmm. waa juróom-benneel bi waaye guddik layratu aidil adha mooy juróom-ñaareel bi layratu aidil fatri mooy guddik juróom-ñetteel bi nga xam ne juróom-ñetti guddi yooyu ñoom ñoo gën ci guddi yi ba ci bëccëg yi noonu lañ gënantee ndax bëccëg yi bëccëg yi ci gën mooy bëccëg yow ma arafa mm-hmm. yow ma arafa bëccëg moo gën ci mboolem bëccëg yi bis topp mooy nisfu saaban mm-hmm. bëccëg yi mooy deuxième bi yowmul jumaa ndax yàlla wax na ko idaa nuudiya lis-salaati min yowmil jumaa fas'aw ilaa dikrillah waaye it aiday ni it ñoom seen bëccëg yi mooy aidul adha ak aidul fitri mhm. ñoom ñoo topp ci ngëneel yooyu nga xam ne guddi yi ñoo gën te li tax ñi gën mooy lañ ëmb waaye bëccëg yi ñoo gën waaye li tax ñi gën it mooy li ëmb kon guddi gën ak jamono alayhi salaatu salaam moo gën mhm. donte ne bëccëg yi yeneen bëccëgi yi ñoo kii waaye guddi gi doole ji alayhi salaatu salaam moo ko jox macha allah sëriñ abdullah macha allah ceey alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëriñ Mouhamed Ngaari mhm. ci leeral yu am sur yooyu nga xamante ne defal nga ko waaye il faut que nag ñu laaj tuuti ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne ni ko Sëñ Tuubaa waxee rek mm-hmm. wa huwa alxabibu alladi mm-hmm. min ajlihi xuliqat xalaiqullahi kal amlaaki wal bachar mm-hmm. eh, sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lépp lu am rek ci darajaam la ko suñu boroom bindee loo ñuy wax ci moom ak tamit loo ñuy wax rek ci ay jikkoom yi nga xamante ne war nañ ko roy ci moom insha allahu rabbi mooy ki nu yàlla royloo Euh, ndax dafa wax ne laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun xasana mhm. yéen ñi nga xam ne yéen maa ngi yónnee alayhi salaatu wasalaam ndax mhm. bu ñu xoolee àdduna mhm. bi ko yàlla bindee nit ñi ay tolluwaay lañu bi muy bi yàlla di yónni ni yàlla aadama boobu dafa am nit ñi tolloon yàlla yónni yónti yàlla aadama ngir bu ñëwee régler situation bi biñu demee ba nit ñi weesu foofa mu ñónni ña si topp lu mel ni yónti yàlla noox gannaaw bi muy yónni ba ci yegg yónti yàlla ibrahima ba ci ki mujj ka muy yónti yàlla Aysa gannaawam nag nit toll ci ak ñor nga mhm. xam ne boo alayhi salaatu salaam ñëwee mhm. la muy indi àdduna dootu ko weesu mukk ci àdduna allahu akbar kon alayhi salaatu bi ko yàlla indee daal mooy xaatamu nabiina wa imaamil mursalina mm-hmm. loo xam ne lu nit màgg ak lu xelam màgg a toll saa su ne dana ah ndikete lii kat alayhi salaam fi indi ba indi lu ñu jaaxal mm-hmm. léeg-léeg na nu bool déet waaye mm-hmm. lu mu fi indi rek fekk na alayhi salaam wax ko kenn mënut fee wax lu saf xorom moo tax gis nga Musaylimatu Kazaab ba mu ba mu ñëwee léppam lan war a roy roy ci ay jikkoom Euh, ndax boo xoolee na ko Cheikh Bamba waxee mhm. euh, euh, wa huwa alladi fa faax huwa siwa mhm. min al baraya bil huda xatta mhm. bada kadbu suma fi arshika al muazami alayhi salatu wasalaam anam goo ko jël rek moo ci mën ñëpp boo jëlee ci anamuk bëgg lu baax alayhi salatu moo ci raw ñëpp nga jël ci anamuk ragal yàlla alayhi salatu raw ci ñëpp nga jël ci anamuk bëgg nit ñi am jàmm alayhi salaatu salaam raw ñëpp mhm. nga jël ci anam nu ñu yoree kër sa digg ak sa waa kër say soxna ak say doom alayhi salaatu salaam raw ci ñëpp digganam ni muy ànd ni muy àndeek ñim jamono anteek mu raw ci ñëpp diggam ak tabe mu raw ci ñëpp diggam ak mën a jëf lu baax ak xidma nga xam ne day nangoo sonn ngir nit ñi jëriñu alayhi salaam raw ci ñëpp kon moom léppam rek luñ mën a roy la mhm. euh, Cheikh Abd wa huwa akmalul wara xalqan wa xuluqan zahara mhm. wal mislu xaqtu lam yura mhm. walan yura fi chiyami jazakumullah Cheikh Moustapha dégg nga sëñ Mouhamed Ngaari li mu ñu indil ci gàmmu ak yonente bi salaa salaam lan nga ñu ci dolli insha allah rabbi dellu di sof ci waxi Mouhamad Ngaare ji rek mm-hmm. lan mooy gàmmu mm-hmm. wala ban cëslaay la xam mm-hmm. fekkee ne da ngay dellu ci alxuraan comme ni ko Mouhamad waxee am na aay yu bëri yoo xam ne day dikk di tegtale ne suñ borom dafa sant yonent bi sallallahu alayhi wa <coughs> mu xool histoire yi ñu ko jiitu pour mën a yar jullit yi pour mën a yar njaboot gi sunu borom wax dafa wax ci benn aaya qaala allahu taala wa kullan naqusu alayka min anbaai rusuli maa nu sabitu bii fu aadaka yow yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay nettali xisaay ñi nga xam ne jiitu woon nañu fi ngir sa xool mën a sax mhm. comme yonent bi nga xam ne suñu borom da koo defal ak mbaax nga xam ne ci la moom la mbaax commencé ci moom la mbaax yem mhm. yonent bi da koy suñu borom da koy nettali ay jaar-jaari yonent yi pour hmm. moom mi nekk yonent hmm. mu gën a mën a taxawal mission ba rawat na ñun ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu fi bàyyee ko ak fi ñuy gàmmoo romb na junne xat jëm kaw hmm. comme ni ko histoire nettalee gàmmu yonent bi deful ko comme niñ koy organiser ñun waaye daana woor bisub altine buñ ko waxee mu ne saalikal yow mu lës yi wulittu fii mm-hmm. mooy bis bi nga xam ne gane naa ci jamono daana wax saxaaba itim bu ko saxaaba yi di wax di koy jox yenn ngëneel yi di ko tagg mm-hmm. mu ne leen bu leen ma tagg jikko jooju yonent saa nga moo ko xamee mm-hmm. ba saxaaba yi xaw a jaaxle mu gi mu nag mu teg loxoom ci dënnam ne man maay ngën ji kon buy wax man maay ngën ji mbindéef mhm. kon xaalam moo ko yóbbee mhm. kon nag ñun buñ demee di dox di dox ba jamono foo toll ñi nekk ci lu baax ak ci lu nekk ci lu safaan ñëpp ñu ngi organiser def ay festival mhm. kon ñun nag buñ amee tawféexu suñuy kilifa taxawal gàmm muy mboolem maam yi baax yi fi nekkoon waaye nag sunu sëriñ bu tedd ba Cheikhuna Ahmad al Qadim mhm. fësoon ca fës goo xam ne mhm. wax ko bind ko def ko ñu gis mhm. mu daal di wax ne ahyaytu mawlida nabi min asasi wan qaadali fooqal mu naa fii talsasi am yeneen mu indi ne wan qaadali fooqal mu naa fii si loolu yëpp histoire la yoo xam ne bokkuñu tolluwaay moo tax muy ñëw loolu njëlbeenu xasida bayit bi day nekk benn waaye ca daaneel ba day safaanoo ngir jamono bii la nekk jamono bii la nekk. Mhm. kon nag bu yàlla dogalee suñ sëriñ Cheikhuna Ahmad al Xadim ne lépp lu am mu ngi ko amee ci màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa màggalee ti mu leeral ko. Mhm. salaatu sitta bi mat yi sitta taati yi batta maxatti saay. Mhm. julli ci yonent bi fukki weer juróom-benn weer yi juróom-benn weer yi muy tagg yonent bi di wane ay ngëneelam. sunu sëriñ ba bu gàmmu jotaan. sëñ Touba da daan def ay kuréel. Mhm. fukki kuréel ñetti kuréel lay def. Mhm. ñii bu yëkkatee ci jas bu. Mhm. ñetti bayit fukki bayit ak ñaar. ña lay yëkkati ña yëkkati ci mawaay bu. jas bu mawaay bu muqaddamaat ñu daan dugal basanti ci biir. kon nag loola day wane ne gàmmu sëñ Touba fonkoon na ko mag ñi fonkoon nañ ko. boo demee tey ci histoire Sénégal wax nañ la Maalaaj Malick taxawal na gàmmu yenn kilifa taxawal nañ gàmmu waaye nag sëñ Touba nam ca jëlee woon engagement. bëriwut ñu ko ci jëlee engagement. loola nag ba muy dox di dox ba ñëw njaareem sunu kilifa gu baax ga Cheikh Omar Fall. Mhm. daan ànd ak rakkam ji di ñëw di gàmmu si. Mhm. ci ko waxoon ne ko Omar fa ngay bayee ko sori na te xam naa Saalum fa mu nekk. Mhm. ndaxte nekkoon nañ Poroxaan. kon bu gàmmu jotee del gàmmu fa Tuubaa kon nag loolu mooy cosaanal gàmmu. loolu mooy gàmmu. te gàmmu lépp nag mooy wax ngëneeli yonent bi. ak ay jikkoom. ak wax. kañ la gën a jamono ak ci wan askan la bokk mhm. loola lépp nag buñ koy wax mhm. jullit yàlla yi di gën a xam yonent bi di gën a xam askanam di ko gën a sopp te yonent bi noo ko gën a soppee rek muy yokk sa cofeel ci moom nga gën koo mën a topp qul in kuntum tuhibbuna llaaha fattabi'uuni yuhbibkumu llaahu mhm. ku sopp yàlla sopp nga yonent bi ku sopp yonent bi sopp nga yàlla te ku bëgg sa cofeel ci yonent bi yàlla gën a gaaw na sopp yonent bi kon yàlla suñu borom ci boppam dalay sopp kon nag ñi ngi ñaan mhm. li nga xamante ne mooy njariñal gàmm suñu borom defal ñu ko mhm. julli ci bi ak def ay bernde loolu lépp lislaam da ko santaane mhm. kon Cheikh Abdoulaye bu fekkee ne loola mooy gàmmu bu fekkee ne yonent bi saxalu ko muy sunna boo xam ne daf ne dee leen ko def tim jëf na jëf joo xam ne bu dara xewutoon ñun kenn ku ne war naa jëf di gaamu kon nag ñi ngi ñaan yàlla ñu fekkee bis bu tatal ko mm-hmm. Mm-hmm. comme ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha digalee mm-hmm. sëñ Saliou itam ko defee noonu di yaatal gaamu bu mu fi toogee ba ni mu fi bàyyi ko lay delloo kàddu bi macha allah jërëjëf sëriñ Moustapha Fall ci leeral yu am solo yooyu sëñ Mouhamed du ñàkk nag ñu ñëw tuuti ci ngëneel yi comme ni ko sëñ Touba waxee laataa ñuy dugg nag ci ñaareelu jotaay bi incha allah fa man yuazzi mawlida nabiyina babil huda fala yuxaas حسبوا عدا عند الحساب المفخم فكل من أنفق في مولده المشرف مالا بخير صرف ولو بقدر درهم فإنه كمن خدر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفخم ngënal yooyu sëñ نيت nit ñi نكو nañ ngir ñu waajal li nga xamante ne mooy gàmmu gi incha allah. jërëjëf Cheikh Abdou Lahad ci kàddu yu am solo yooyu jërëjëf Cheikh ci kàddu yu am solo yooyu. Mhm. muy bis boo xam ne bis bu màgg la. Mhm. ñi ko xam ñëpp a koy dàkk. ndeysaan. alayhi salaam bu fekkee na mooy la alayhi salaam defoon. Mhm. comme ni ko Cheikh Moustapha waxee euh, woor na ñu laaj ko. mun ndax mooy sama anniversaire. ndeysaan waaye moom bi mu amee 40 ans moom alayhi salaam. Euh, yónnee na ñu wutal ko gàtt bu baax. mu lewetal ko duñ ko ne alayhi sa salaam loo ci jublu mhm. mooy damay ngéntewaat sama bopp allahu akbar kon loolu mooy dëgg-dëgg gàmm mhm. te xam nañ ne maamam ngénte woon na ko mhm. ndax euh, abdul mutalib boobu la fa fekkoon ndax boo fekkoon wooyu juna wàcc abdallah abdul mutalib yoroon ko ngénte woon na kon moom bu dee ba feetuwaat anniversaire mooy kon moom gàmm na ba nga xam ne ñu baax ñëpp daan nañ dàq ba ci wax nañ sax euh, Seydina Abubakar daan na ñaan yàlla mu wàcc liggéey bisu altine lépp mhm. ngir dàkk bis bu tedd boobu mhm. nga xam ne suñu tubaab daan na ko dundal ba daarul moat yi ñoom yemuñ ci at mu jot ko benn yoon mhm. waaye dañuy di ko dundal kon ñi xam ngi koy dàkk moo tax suñu tubaab euh, ila ixyaai da chahri kawnuhu li xayril mu jot mu ñëw wala waaye déedéet même bu ñëwee sax man du yem ci dundal bis bi suñu nee na man weer wi moom laay dundal kon nga xam ne ngëneel yi ñi ko xam ñëpp ñu koy ñu ngi koy dàkk Mhm. ci la ñu dimbale it yee ñu li mhm. mawlidil muxtaari sirrun yuktamu mhm. id sawnuhu anil wara yeen xakim suñu tuwaa ne nag gën ak jamono alayhi salaatu wasalaam am na ci mbir yoo xam ne ay secret ak baax-baax yoo xam ne su ko nit ñi xamoon at mi yëpp duñ def dara lu ci gàmm kon nee am na secret yoo xam ne kenn ñi mu ko wax ca kaw li alayhi salaatu wasalaam wax ci xadis boobu nag ne yàlla day joxe cadeau léeg-léeg ci bis yi na ngeen ko jéem a kar yaakaar nañ ne àdduna yàlla joxewut fi cadeau bu gën a Alioune Sarr Sarr dëgg la waaw ndax li mu am lépp comme Alioune Sarr Sarr moo ko ci gënal te ñun moo ñu ko jox nañu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalik fa leefraxu kon Alioune Sarr Sarr lu waaye mën a bég ci àdduna ngir yàlla jox na la ko bég ci Alioune Sarr Sarr moo ko gën waaye gàmm it noonu la amee ngëneel ni ko suñ tubaa waxee boo xoolee suñ tubaa li tax mu jekku jàmm mu jekku gàmmu <coughs> xasidaam yooyu mu liggéey mm-hmm. nga xam ne ni ko Cheikh Moussa waxee moom la doon gàmmoo mm-hmm. jas boog mawaahi boog muqaddimaat di mm-hmm. xasida yoo xam ne benn bu ne da cee traité ay thème ndax boo xool lu mel ni jas bu li ci yéeme mooy euh, suñ tubaab bi mu ko defaree tudd ci sant yàlla julli ca alayhi salaatu wa salaam tudd ci al isra wal miraaj nga xam ne daanaka histoire yun sansala lu ñu ci bàyyi bëriwut dëgg la dugg ci isra bu baax dugg ci miraaj bu baax dugg ci xaswatu badar mhm. dugg ci xaswatu uxot mhm. wax ci jikko yi alayhi salaatu salaam wax ci ab mhm. bindam wax ci ay mucjisaam mottalee ci alquran wax joo xam ne wa huwa al kitaabu alladi euh, ni mu ko waxee ca bayt yu bëree bëri wa huwa man sabata fiihi walam yaltafita daa amalin yakun fata inda shakur al akram wa huwa alladi man adbara anhu wa ma tadabbara fiihi asa rabbal wara ak wa man abaahu turda daa xasat wana dem nga xam ne noonu lay jëleewul xasida yi di ci tagg alayhi salaatu salaam di ci wax yu bare bare boo xoolee ba ci la ko def mawaahi bi di xasida gu yéeme ndax suñu tubaab ba xasida gi jeex xam a xam tuuti neexitu arab xasida gi da lay yéem doo ko mën a jàng mu yegg ndax li koy waaye li bare bare ak ni xasida gi gudd daanaka zaak ngay dégg muy junj wala mu demam yàgg maanaam lëhoo Mm-hmm. wala mu naan huwa mm-hmm. wala mu naan anta mm-hmm. wala mu indi kaafu xitaab wala mu indi yaa ul mu xaatab nga xam ne waaye na ko ba xasida gi jeex waaye da koy joor ak di ko junj léegi-léeg nga gis mu mel ni dafa dafa jàkk dafa dafa xaw a sori mu naan zaakal mutaacu zaaka shujaau bihi yuraacu zawul ibaayi di ko junj léeg-léeg mu mel ni dafay nekkul mu naan lahul baraa lahu shafaa lahu jamaa xaayurti qaay léeg-léeg mu mel ni alayhi salaam dafa jàkkaarloog moom mu naan ko antal karimu anal xadimu dëhëran udimu fii ka الصناعي للي يملنا عليه سار السلام ده كوي هو نان كوي هذا الجميل من ده كوي خو خو سرتودي ما نان كوي هذا الجميلة هذا الفضيلة أنت الوسيلة دي الخطأ للي يجلس مو خاب خطاب تجين يمي يمي يمي خم نه noonu tëggee xasida yi ñuy fanaanoo di tagga alayhi salaatu mhm. di ko jàng waaye di euh, loo xam ne lu yéemale ca nam defee waaye ndax guddi gi dafa bëri ngëneel mhm. ndax boo seetloo comme ni nga ko waxee léegi fa ma yoadi mhm. di ko ñuy wax lu am solo ndax boo xoolee ba ci jamono sax buñ bëggee mbir mu am solo ñu bëgg koo woyefal ci nit ñi dañuy fexe bañ bañ koy tudd lu bari ndax mbir boo koy tudd lu bari léeg day xaw a woyef xel yu bon yi ñu bëgg ci réew yëpp dañuy fexe ba def ko débat ci pénc mi rek ñu di ko tudd ba mu xaw a late moo tax fu ne gën ak jamono alayhi salaam yi ci nekk ak suñu tubaab junj ñu ko mhm. yàgg gi ñu ko yàgg a waxtaanee mën na dem ba mel ni lu xaw a woyof mhm. waaye eh, xam dëgg-dëgg doole ji buñ la ko waxoon da ngay bàyyi sa yitte yëpp waaw daal dina jaral na ma bañ a liggéey a lekk bañ a naan ngir kar loola ndax àdduna defuñ fi lu ëpp solo wu taw yi suñu tubaab nag dimbalañ ci fa man yu'azzim mawlida mhm. nabiyina baabil huda falaa yuhaasabu ghadaa lii yaakaar naa nit est-ce que nit mën naa liggéey lu ëpp solo dem yow ma xam ñu ban laa audité a sax ku fekk am lu xawatane foo dégg audit da ngay daw wala nga jéemul sëriñ bu mag boo xam ne mhm. léeg nga dégg fi boo dee dem ci jotaay yenn gars yi mhm. da nga dégg ne diw dañ ko doon bëgg a woo mhm. moo fexe ba kilifa sàngam ñëw ci këram ba mu fa toog moom rek ba gars gis ne xam na diw sàngam kon su fekkee àdduna ngay wut làqukaay ngir bañ ñu audit la yaakaar naa yow man xëy am na rawe ndax foofa la suñu tubaab waxoon yàlla yor na yar boo xam ne bu ko xàccee kenn ko ne tegal ci suuf ñun nag léeg-léeg ñu dem moom yàgg ñu jàpp ne bu yàlla ne nangam diw sàngam ne yàlla du fi am yàlla day bàyyi lool fekk dimeewu noonu kon di kar yu baax yooyu ci guddi gën a jama sallallahu alayhi wasallam ñu ko suñ tubaa waxee te moom lu ñu wax gëm nañ ko mhm. kon nag falaa yu xaasa ba xadaa duñ ko fooye duñ ko duñ duñ ci xel yaar noonu ko maggal it ba nee na a gën a ku màggal a jamono alayhi salaam mel nga ni am nga darajaay ku teewee xare badar xare badar yaakaar nañ ne ñu bare bëri classe Ousmane Dieng buñ ko fekkee woon danañ wut ngant mhm. nu kon la saaba yi wala yenn gaa yi defoon ñu mhm. bëri danañ ko def léegi nag ñu ne la boo defee jëf sàngam di nga am darajaay ku xara xare badar wa jëf joju kay yow mën nak alaaj ya xeyti su fekke bëgg nañu am loola ñak ko def day tegtale ne boo fekkee woon badar du la jëral nga dag sa yitte wala du la jëral nga jël sa alal def wa bo xolé xoolee lu mel ni xoneen yooyu yëpp dund na ko euh, tubaarkaal bayit bo gisee ah, euh, fa man taaman hayya a mhm. lahu qad qaraa mhm. ndax li ali saa def nona moy mhm. wut gatt lewetal ko jox nit ñi ñu xewul ngir ne ci la gën ali kon ko def da nga roy ali saa kon gam mom day sunu su wir so xam ne kenn mënu koo kii ndax euh, façon yi day bari man mhm. nga koo màggalee di julli ci alayhi salaatu salaam man mhm. nga koo màggalee woor man nga koo màggalee def ay xéwal man koo màggalee di julli mboolem jëf yu baax loo ci def rek jubloo màggal gën a jëm salaam def nga ko mhm. kon yu baree bari la boo gisee nag mu yaatu noonu ndax euh, yàlla daf ñoo dimbalee yu baax yi kenn mënta def yëpp dëgg la waaye safaan yi yëpp lañ mën a bàyyi mhm. ndax yu baax yi bu fekkee bàyyi nga safaan yëpp yu baax yi loo ci def rek baax nga su ko defee boo demee yomal xam da ngay mën a jàll kon looloo tax façon yi ñuy màggalee gàmm bu bari mhm. ngir kenn ku ne loo néew néew doole nga mën cee am benn macha allah su ko defee nag kon mhm. ñu dugg mubasharatan ci Cheikh Omar Fall waaw macha allah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf Cheikh Mouhamad Ngari Fall waxtaan bi am na solo lool gars yi ñoo ngi koy topp eh, di wane seen kontaan lool ci waxtaan bi yal na yàlla gën leen defal tawfeex ba ak teesiir defee incha allah rek ñu dugg ci ñaareelu jotaay bi mooy waxtaane kat mooy Cheikh Omar Fall jërëjëf Cheikh Abdou mm-hmm. Cheikh Omar Fall day mm-hmm. mooy góor yàlla gi nga xam ne mm-hmm. yàlla da koo teeloon a dimbale teel koo baaxee ndeysaan mu bokk ci ñi teelal gis leeru ko leeru Cheikh Ahmad Bamba mm. dana ñëw ci biir histoire bi gannaaw bi mu gënee jamono moom Colobane gosaas ci Colobane Gossas nek fele ca penk Gossas ci 1880 mi ngi ci téere bi hmm. way juróomu goor tuddu sëñ mam goor Fall hmm. moom di ku am taxaway bu reey reey hmm. nekkon borom xam-xam nekkoon alquran alxuraan dañuy wax ne alquran lu ko laal yëkkati ko dañ bu yalla wacce alquran ci baytul azza ci euh, ci baytul azza euh, mu tombeek guddi laylatul xadri mm-hmm. ci la guddi ga nekk guddi gu gën ci guddi yi mu jox ko jibril jibril nekk gën ci malaaka yi mm-hmm. jibril wàcce ko ci euh, weeru koor mm-hmm. weeru koor doon weer wi gën ci weer yi ñu wàcce ko ci alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam nekk ku gën ci mboolem mbindeef mhm. biñ ko wàccee ci xéer wi yu nek kuntum khaira ummatin uxrijat linnaas yi mhm. ngir wàcce gi wàcc mom alquran ba tay ko gis mu mokal alquran mo gën ki mokkul alxuraan mhm. ba ci bis yi sax bis bo ci jang alquran mo gën bis bi nga jàngul alxuraan kon alquran doole jooju moo tax léeg-léeg boo ñu ne diw mokkal alxuraan nit ñi bëgg ko woyefal moy li ma la wax rek dem na ba jamono fi ne yi am solo li ma Cheikh Hadi di wax ne dañu toll ci jamono xalbul haqaiq yi bax yëpp dañ ko salfané légui <laughs> xam ñi jitton dañu fiitee gënaaw waye yi ñuy wax ji bis dana ñew yow di bu tey ji buñ la xawoon a xëccal rido bi ba sa ba tegu ci yitt yëpp ngay bàyyi dëgg la kon yooyu Cheikh Maam Góor Fall ci la nekkoon wala fa kan wax ne mbër maa nga feeñe kolabaan mhm. fasaalum ca tatrasin mhm. diggante ñaari yaaram ndeysaan bàyyi bàyyi sëriñ madun masiwe maam góor mhm. rijaale ràññi nañ ko yar na aw góor yaayam ma yaayam ja maam faama bajaan mooy gorsa làmboon a diine sàmm am na kersa mu nekkoon ñu nekkoon nit ñu baaxa a baax a baax nga xam ne lu baax rek moo leen yitaloon mhm. mos ñoo nekk ci yëf yi àdduna yi mhm. waaye it euh, nekkoon borom jikko ju màgg moom woy juru mu jigéen woowu ndax dañuy wax ne euh, wal baladu tayyibu mhm. yaxruju nabaatuhu bi ni izni rabbihi fu baax rek la ñuy séentoo fu baax ndax euh, dañu wax ne am na kilifa goo xam dafa ñëwoon ci ab dëkk bi mu ñëwee ne Euh, gone fekk xalé yi di fo comme ni ko al yi di défé mo mhm. leen ku mëna saga mhm. ci yeen mhm. euh, ñom xamuñu saga ñaan man man mune mu ne saga leen ñaan saga saga saga nga xamné sax xamuñu ba top saga ñom ba du leen dégg non rek mo ne leen fii ku fi jëlé jiw bo démé lo ci am dara bax nga xamné fu bax lan mëna fago fu bax nga xamné way woy jigen nak non la mënon nga xamné lu bax rek la mësa xam lu bax ci ci la yaru ci mom la xam bimu démé ba mata dal jang nak euh, woy juróom moo ko dalal jang mag ñi lolu nañ ko barkeloo bu baax a baax a baax boo amee doom ba ci Sëriñ Tuubaa def na ko ci ñu bëree bëri si njabootam mhm. dañ leen ne dalal jàng ba noppi soog leen yóbbu ci ndaam Abdourahmane Lo wala mu yóbbu leen ci keneen mhm. moom nag wooy jëm góor moo ko dalal jàng mhm. Cheikh Omar bàyyi baa ko yar ci xam-xam sóob ko ca yoonu góor ña moo bëri ndam way juróom nekkoon foofa ànd ak moom ca Kolobaan Gosaas bi mu nee ba dëkk ba xaw a màgg comme ni ko gars yu baax yëpp di defee léeg boo nekkee ci dëkk ba gis ne dëkk bi du méngoo xaalub ku yor daara mhm. ngay tuxu dem feneen xam ne aman yohaajir fii sabilillahi mbuut maa waral tuxoom ya doon a laahi mhm. ndax suñ tubaab loolu bu xoolee def na ko lu bare bare bi mu sampee yoonu murit ci Euh, Mbacke Kajoor. Mhm. gannaaw ba bàyyi koo na dem Mbacke. Mhm. te lépp bàyyi koo fa ñëw sanc Daaru Salaam. Mhm. bàyyi koo fa sanc Touba. ba ba muy dem Mbacke Bari. te loolu lépp day bëri yoo xam ne moo koy waxal boo demee ci di euh, Mamadou Diop Dagana. dana koy wax ne li taxoon mu tuxu mooy day dem ba mbooloo mi bari ba jaxasoo tàmbalee am te kuy yar. maanaam ku nekk ci daara di jàng ak ku nekkul ci daara waruñoo jaxasoo. dëgg la moo taxoon muy taxaw nga xam ne ba mu mujjee bàyyeekoo Touba sax di dem Mbacke Bari. daf ne sëñ bu Buso yow toog fi nit ma ku war a yegsi ci man nga wax ko mu ñëw mu ànd ak sëñ Cerno Ibra Faati ànd ak sëñ Daam Abdourahmane Lo sëñ Cerno Ibra Faati di jàngale xam-xam bi sëñ Daam Abdourahmane Lo di jàngale alxuraan ci nga xam ne kon li waroon loon mu bàyyi ko woon Tuubaa jëm foofa ci zaahir si mooy mën a samp ay daaraam mhm. ndax suñ maam cerno dafa jeexaloon téere yi ko mhm. suñ Musaa waxee bamba woon cerno na leen gàgganti mhm. man bamba bis pénc balaay liggéey waaw mu teg ci ne ci yàlla jëmmi nit jikkoy malaaka maam cerno faati wuute naag Musaa Ka waaye gis nga koy ñi mu àndaloon nag moom suñ tubaa ñooñ noonu lañ meloon waaye way juróom di ko yar di ko jàngal bi mu tuxoo fa moom bàyyi ko foofu dem misra misra waalo Euh, ànd ak daara ji boobu it Cheikh Omar ma nga fa woon waaye bëri woon ay teggin lool ndax fa kasratul almi bi xeyri mm. adabin mm. jaalibatun ilal aza wa taabi te inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afnatun kon mm-hmm. daa wuteeg am xam-xam mm-hmm. jamono yi nag am njàng bari mm-hmm. boo xoolee ba si école yi li tax nit ñi bu njàngee ba nag mënuñoo jëriñu ndax dañoo jàngoon ngir am métier boo amul métier rek perte nga waaye boo dee jàng ngir am xam-xam donte ne amoo ci métier di nga yëg ne am nga bànneexub am xam-xam te dañuy wax suñu tubaab bi ñuy jàng séeréer day wax ne wut xam-xam li nga war a jiital mooy gannaaw bi nga yéenee dundal xam-xam yéenee génn ci réer waaye nag da ngay yéene am xam-xam nag ngir mën a am euh, cafkaa xam-xam dëgg la Cheikh Omar nag ci loolu nekkoon waaye nag fonk fonkoon woy juróom lool ndax boo xoolee jàng léeg-léeg euh, mag ñi li ñu am lépp am na ñu leen jiitoon mhm. waaye ñoom seen xam-xam ak niñ ko tasaaree moo tax seen tur yegg foofa dëgg la ndax loo bokk bokk fu baax te jàngoo doo bokkoo fa suñ tubaa dafa doon wax wax na ko mag ñëpp awuma doom awuma jarbaat awuma rakk mhm. li ma am mooy ab taalibe mooy koo mhm. xam ne maa ngi mooma bokk pas-pas mhm. taallam fa laysa al maru yuladu aaliman wa laysa axwa aaliman ka man huwa jaahilun nag euh, ci la ànd ak waajuram bi ñu bàyyi koo foofu yëpp sëriñ Modou boo a misra waalo dem gént kay sero nañu juwaale mu dem gént kay boobu Cheikh Omar Fall nga fa mu defalu fa mooy jël rakkam ja tofal ko ci kawam mooy sëñ Babacar Fall moom nga gis ci nataal bi waaw ndeysaan wooyu juróom dafa jël sëñ Babacar Fall mm-hmm. ne Cheikh Omar Fall yar naa la li ma bëgg ci yow lépp am naa ko mm-hmm. damaa bëgg nag nga wutuma ci ndax moo tax boo gisee ñiy wut doom mm-hmm. alxuraan day nettali ndax comme nit daa wuteeg yàlla yàlla moom du tële du lot du am soxla su mënta fajj mhm. yalla du jaxlé mhm. ñun nak comme ñun dañuy télé dañuy lot dañuy am soxla yu mënta faj mhm. moo dañoo soxla ak roxandi moy doom motax ngay gis ci alquran ci suratu maryam ha ya an sad dikru rahmati rabbika abdahu zakariya izna da rabbahu nidaan khafiya lum ko wax qala rabbi inni wahana al azmu minni washtaala rasu shayba wa lam akun bi bi shaqiya zakariya dafna na ah yalla man de gis nga ma ngi ni tàmbali naa mage bii jaaw bi ñëw na te ba léegi amaguma taaw mhm. te xam naa ne bu mu fi jógee te ma doom mhm. liggéey bi dina taxaw billaahi waaw dimbale ma rek nga may ma doom su ko defee wa waaye nag wajaanhu rabbi radiya nag mu ne ko yàlla du doom yëpp mën a wuuti seen bàyyi mhm. am na doom yoo xam ne soo leen fi bàyyee loo fi bàyyi woon danañ ko yàq <laughs> <laughs> mu ne ko nak dama bëgg nga defal mako muy doom jo xamne bu ñëwé day am jikko jo xamne dina mëna a jaxasoog nit ñi kon doom yonent yi sax buñ ko amuloon dañ koy joytu yalla mhm. rawat na ñun motax tax mam maam Fall biko yalla joxe Cheikh Omar Fall mhm. mu xamne kon ndekete kee ngi nii ba tax mu jël ko yii ko jangal ko ba lu bari mu def ko ci mom gannaaw ba nak ci niko borom bay waxe fofé la jël Serigne ababakar Fall jébal rakam jébal mhm. magam Serigne Omar borom xal sax na fa doora genn génn ci kër ñen ngir boba genn rëb na def na lañ min comme ni mala ko waxee yoon ci gannaaw gannaaw ba nak Euh, ci la Cheikh euh, sëñ sëñ Madoune Fall bàyyeekoo foofa. Mhm. dem dëkk bu ñuy wax. Euh, jaar dem dem see jege ji sëriñam ba mooy sëriñ Alioune Diop. Mhm. di taxoon mu dem këriñaan mooy ngir na jege ji sëriñam ba booba sëriñ Alioune Diop moom nag ci tariqa tijaan yi la nekkoon. Mhm. waaye nekkoon fa kàngam. ndax demoon na bañ xaddamaal ko fa mu yor fa daaraam yor fa mbooloom yor wirdam di joxe wirda waaye nag xelam mu leer ak xolam bu leer. moo tax mu dem ba jëmmi jamono yàlla wan ko leerug Sëriñ Tuubaa ga hmm. moom la euh, borom bi di wax ne ci yooyu at la leeri Bàmba jolli bannam wasar ca ruuy gaayee julli xam ne Sëriñ Tuubaa bi mu feeñee hmm. képp ku am cër yëg nga ne Sëriñ Tuubaa ñëw na ndax mooy kuutlaayo alayhi salaatu wasalaam hmm. leerug Sëriñ Tuubaa ga daal di feeñu Sëriñ Omar ca yooyu at la téeñu waaw bàyyi ba xëy woo ko xabaar ko ay mbir naa ko Sëriñ Bàmbaay kaseetu sa cër mokkal nga am nga xam-xamub sharia euh, may naa la wér de teg la ci tariixa waaw daal di ne ko nag ah Cheikh Omar yow de dafa xëy bis woo ko ne ko man de dafa am lu ma yàlla wan. Mm-hmm. yàlla xamal na ma ne yow say mbir ci Sëñ Tuubaa lay jage. Mm. léegi nag ma bëggoon nga waaj dem seeti mbir moom nu muy demee. ne ko nag boo jox naa la ndigal nga dem boo demee ba waaj ba jekk bu war a dem nga ñëw ma yeesal ndigal li. Cheikh Omar ci la euh, toog ba jëmmi jamono mu xalaat ca loola xalaat ci xelam. ñëw ne ko bàyyi la nga ma waxoon ci laay bëgg jublu. Mm-hmm. bàyyam jox ko ndigal nag mu bàyyi ko foofa ngir war dem seigne touba bo seigne touba nga gànnaar mu fekk seigne touba muy dox bu sore sore sore ndax ñom bo nattee seen mbir da ngay xamné ñom mhm. ñoom fekké ñu ali sar sam kenn du len man wallahi deug la ñun ñi nak bu fekké dem mhm. dugg sa oto nongi nongi benn mhm. waxtu nga dem touba sax leleg léeg mënuñu ko dëgg la daanaka bay sa yitte ngir wu dara yalla yàlla daanaka mënuñu wallahi kon nga xamné ñun bu fi seigne touba nekkon lu cioli bari bari bari na ño xamné seigne touba mëna mën na fa nekk ba jógee fa duñu gisé ak mom wallahi deug la ndax yitte yitte yitte ci la ñepp di rawé te yitte amuñu ko ndax bari ño xamné suñu classe nangu ño son seigne sëñ bay dafa seigne bay jax dafa waxone sonnal te farlu mhm. ku sunnul sonle sonna rafet mhm. as gor dafay sonna kay farloo ko noppalu nit allahu akbar waaw ku bëgg a tedd te def ab tëddkat dafa dof mhm. con nag torox la ñu daa sàkkoo teraanga xarit ndeysaan waaw con nag torox la daa sàkkoo teraanga xarit nga xam ne loolu day day day lu wér a wér eh, ci la ci ci la ci tegit ba ne ba ne ba ne koo gis mu gën ñëpp hmm. daawu dox di xëy ne galas di hmm. def yoo xëy nee na koy sàggan ba dee fi ko jot <laughs> kon nga xam ne ñoom loolu lañ xamoon waaye yeenañ ci yeenañ ci nit ñëpp bi ko wuy juróom waxee nag ne ko Cheikh Omar mu ne ko mu ne ko suñ tubaab mooy faj sa xaajo zahir na wa baatina hmm. say mbir dogal ba jiitu na xam ne ay borom cër lañ de bu bu yemoon ca lam yoroon dana yorob cër waaye dafa xam daa am loo xam ne yàlla da koy defal nit ku bëgg sa cin saf xorom faaw nga jege leen tax Cheikh Omar mu ne ko nag jàng nga ba mokkal alxuraan mhm. jàng nga ba am xam-xamam sharia mhm. yar naa la may naa la wirde li ma mhm. sañ ci tarixa bi ñëpp sañ ko ci moom nga ci sañ waaye nag bëgg naa nga am lu bokkute la ñu am li ma leen waxee barki ne nit loo lu sa doom am jàppal yaa ko am maanaam loo ñàkk te sa doom am ko yaa ko am dëgg la soo mokkalul alxuraan te sa doom mokkal alxuraan mokkal nga alxuraan dëgg la wax na ko ci masaalik dëgg la euh, nu mu ko waxee ne boo dugalee sa doom muy jàng bu mu araf bu mu jàng jàppal ne dang ci am tiyaabo amna num ko waxe ca ca ca. wa man yu bas milu asabiyu. fa xaysuma yu bas milu fi maktabin yaktub lahu al aliyu wa walidayhi wa man yuallimu baraatan min narihi fal tax na mu xale saa dara mhm. mhm. ñu jël ali wa tekki duppam mhm. yi ne ko nel ba mu ne ba nel sin mu ne sin nel miim mu ne mim yegal ne yalla bind na sa tur ci ñewar dem aljan kon kay fekke yow yalla nat na la ba jàngoo sa dom jang kay jàppal yaak mo may and ndax banex deug nak moy nga nek nekk ca bànneex say wajur nekk fa waaye boo dee noos te sa wajur du tumuranke mhm. noosoo noosoo noos normalement jamono yi nag am na da gis sa wajur am soxla nga ne ci yàlla bu bu sa xarit amee soxla nga nangu cee def lu ne bu sa mhm. coro amee soxla nga nangu cee def lu ne bu sa mhm. sëriñ amee soxla nga nangu cee def lu ne mhm. te bu sa wéyjur amee soxla nga ne ceel loolu bëri na lu muy am wala nga sa wéyjur ñaan la jinne nga tàmbali jàmb noo mère dafa mën a laaj ah, maa ngi nii dëkk bi dafa naqadi sama fekk loo am sa wéyjur ko am moo tax soo mokkul alxuraan te sa doom mokkul alxuraan mel nga ni yaa mokkul alxuraan soo amul xaalis te sa doom am xaalis war naa mel ni hmm, yaa am xaalis <laughs> waaw ndox foofu nag lu bari du mel ni am xaalis waaye hmm, war naa mel ni yaa am xaalis <laughs> waaye nag su fekkee nga xam ne hmm. euh, demoo màkk sax sa sa doom dem màkk mel na yaa dem màkk kon yooyu moo taxoon mag ñi daan taxaw bu baax a baax a baax seen njaboot waaye léegi nag moom da nga yar sam kuy ba mu ne léegi boo xëyee la foo bëgg laa rañaan waaw mu nga loolu la ko wajuram wax te am nga te am nga saa ngërëm fobul may naa la ndigal nga fekki Bamba sant naa la mu ne nag ca yooyu at la Sëriñ Omar dem gànnaar fekki Sëriñ Tuubaa li fawqa ay nar gànnaar la bamba jàppe roy gaay yi yóbbu ca pii ba rang ganar wilaaye mhm. gànnaar la tarbiya murid yu magi mhm. yi la folle wuri jindi gindi seigne touba def na lu ne ci aduna mhm. bo xoolee histoire diggam ak lan jor sax da nga xam Sëñ Tuubaa dafa am fit seigne touba ak am fit manam jamono ji Mamour andi Sali jinni aduna seigne touba bo xawona raf touti wala mu bok ak nun ah day ànd gaa yi ci système bi. wallaay dëgg la te loolu nag day day raar léeg-léeg daanaka mën nga xam ne téeméeri at yu jot. Mhm. yàlla benn benn équipe nationale la ciy wàcce. te wax ji de na daa rëy lool de. xaalu li yarkan li abwaabi salaatini. waaw waaw ndax boo xoolee. Hmm? Euh, biñ koy wax loolu. Mhm. biñ ko waxee dafa am ñoo xam ne ñaari nettali la yu bokkul. Mhm. li Cheikh Mahamadou Bachir nettali. ak li sëñ Mahamadou Lim Diop daga nettali. boo ko dajalee da ngay xam ne daanaka benn la. dëgg la ndax bi bi nit ñi ñëwee ne ah. yëf yaa nga feekat te nga ñëw ànd ak Lat Joor mhm. ah mu daal di ngàntal mhm. léegi sëñ ma xaari ma jaxate kala mhm. dafa demam yàgg mu sentir na ak kii kat sama donga la woon léegi nag maanaam xolub wuy jur ak xolub sëriñ jàpp ko ci la nag daal di ñëw wax ak suñ tuba ndeysaan ne ko nag ah Ahmadu mu ne kaa ah, mu ne ko irkan demal rek bokk ci fi yàqu dara ndax ñu ngi mhm. say bàyyi ci ngi ci fekk mhm. waaye mu tontu ko nag mu mhm. tontu en kuy tontu ab sëriñ waaye tontu en kuy tontu nit ñoo xam ne daan nañ dund ci diine waaye daan ci boole am rax ndax boo gisee muy wax ne bëggumaa nekk ci diine di ci raxaat leneen ni àdduna booba gaa yi nekkoon ci diine tey rax leneen ni àdduna moo taxoon muy wax waaye ñun ñu simple ñu taxu ñoon waaw xaalu li yerkan li abwaabu salaatin taxus jawaïsa toxni kulla kulla maa xiini faqultu ko tàllee loxo mu jox ma ko gars yi nga xam ne luñ am soxla li fekk paasu ñu dem France wala ñu raam ci buur yi seen kilifa yi seen nangam duñ ko am suñ tuwaa na man bu ma amee soxla du ma leen tàllal loxo ndax ñoom ñu bëgg sax mën a la guñ ko seen bopp mm-hmm. ak ak ak yu bare bare bare bi si Cheikh Omar demee gànnaar nag mhm. ba jëmmi jamono mhm. euh, ci la daal di dellu siwaat nag ci waajuram mhm. bi mu demee gànnaar nag dafa demoon ngir ziyaara ji ak ngir xamante Sëriñ tubaa ak ngir fas kóllëre gi bi mu ziyaaree ba noppi nag booba jaayantewul waaye dafa dellu siwaat ci waajuram bi mu dikkee nag ay ji dugg ko maanaam yëf yi daal neex lool ndax dafa am loo xam ne boo ko ñëmut xamoo ko am loo xam ne yëg-yëg la gannaaw ba nag ci la ñëw ba Sëriñ Tuubaa ñëwee Sénégal ba dem Jurbel nag 1912 nag ci daal di takkuwaat yeesalaat ak blaxasaayam yeesalaat pas-pasam tàgguwaat wooy juróom war a dem Sëriñ Tuubaa 1912 ngir jaayante xam naa ba la ñoo ñëw foofu ci jaayante gi macha allah sëñ Mouhamed ci leeral yu am solo yi nga xamante ne leeral nga ñu ko mm-hmm. ci Cheikh Omar Fall ni nga xamante ne noonu la jotee ndigal ci waajur yi mm-hmm. ba keroog muy dem fi nga xamante ne mooy gànnaar fekk ki nga xamante ne mooy Sëñ Tuubaa bëgg nañ tuuti rek nga leeral ñu ñi nga xamante ne ñooy njabootam ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ay soxnaam laataa ñuy ñëwaat ci li nga xamante ne mooy digganteem ak Sëñ Tuubaa insha allahu rabbi waaw euh, diggam ak njabootamit mhm. euh, amoon na ay njaboot mhm. ñoo xam ne ñu góor lañ ak ñu jigéen mhm. Euh, nga xam ne ñoo xam ne ay ay na ñoo xam ne ay taalibeem lañu. Mm-hmm. ñii di ay doomam ñii di ay doom yu góor yu jigéen. Mm-hmm. nga xam ne euh, mu yar leen moom fi ñu ko jaarale dong. Mm-hmm. fa leen jaarale. ndax boo xoolee li mel ni Cheikh Mamadou Moustapha. nga xam ne ka fa nekk ne xalifa. moom mooy wajuram moom mooy taaw cheikh euh, maam mooy taaw cheikh Omar Fall mooy hmm. cheikh Moustapha ka hmm. nekk ne mooy sët bi njëkkatoo xalifa cheikh Moustapha mi nga xam ne moo doon xalifa bu njëkk bi cheikh Omar hmm. mooy woy jërëm allahu akbar amoon na si njaboot ku ñu wax Ibrahima Fati nga xam ne euh, maam na faati moom ma loon lay wax moom la ko tuddee nga xam ne moom suñ cheikh Omar Fall daa amoon relation ak mbooleem waa kër Sëriñ Tuubaa yi ba ci jigéen ñi sax am na ñoo xam ne dañu tuddee euh, ay leer amoon na it koo xam ne moom la moom moom la ñuy wax cheikh xam di sama Fall xam ne sax mooy ab caatam mm-hmm. waaye amoon na it alaaj Serigne Fall ba ci alaaj Serigne Fall xam ne ñun mooy suñu wayjur mm-hmm. ñoom ñëpp nag liggéey ci dëkk ba liggéey bu rëy a kenn ku ne bu sa bu bu yàlla dogalee nga nekk fa da nga fay teg ay projet yu mag yoo xam da nga koy réaliser ba tax tey ji fa dëkk ba yegg mu yegg fa Cheikh Abdou Samad Fall moo doon tuddee Cheikh Abdou Samad mi waaw mu ngoog waaw moom ko waaw kii koy liggéey mooy Cheikh Abdou Samad Fall di sët ci Cheikh Omar Fall Cheikh allah kon téere baa ngi ku bëgg a xam rek yi li nga xamante lu bare bare def ko ci wolof ci wolof ci français macha allah lu a jàng rek. waaw macha allah alhamdulilah kon Cheikh Omar ñoo ñëwee ak njabootam. macha allah liggéey liggéey yu rëy alhamdulilah mm-hmm. eh, dégg nga eh, sëñ Mouhamed Ngari. Mm-hmm. mu indi ci cosaan bi. lan nga ci dolli incha allahu rabbi. waaw alhamdulilah sëñ Abdou ñoo ngi lay ziare waat bu baax. Mm-hmm. di sant Mouhamed ci leeral yi. comme ni mu ko waxee rek sëñ Omar Fall. sunu maam radiyallahu anhu muy gën a jamono Kolobaan Saalum. Kolobaan Saalum. booba moo woy juróom ñoo fa nekkoon. waaye lit yóbbu woon histoire bi nga xam ne moo xewoon diggante tubaab yi ak mag ñi. Mhm. ak buur yi. Mhm. moo leen jëlee woon Saalum. Mhm. yóbbu leen moo leen jëlee woon Colobane yóbbu leen Saalum. comme ni nga xamante ne Maam Mor Anta Sali radiyallaahu anhu moomu tim la bayee ko Bawal dem Saalum. nekk Poroxaan. ba soxna Jaara wàccee fa liggéey. loola moo waraloon tim Seex Omar Fall ànd ak waajuram Mamadou ñu dem. Saalum. bañ ñëwee Saalum dal fu ñuy wax Misira comme ni mhm. ko Mouhamad waxee. Mhm. bañ fa bàyyee ko dem gént kay. Mhm. ndaxte gént kay moo doon chef de canton ba fa la nekkoon. bañ fa bàyyee ko nag. ci lañ soog a dem réew yi Joka. foofu lañ bàyyee ko. soog a ñëw ci sëñ Tuba yeeslu ba. waaye foofu rek lañ fay wax rek mooy. mag ñi lu baax fu nekk rek da leen di jaral ñu wuti ko. Mhm. boo gisee seen war faal. Mhm. noon ci daara. Mhm. walla amoon taxawaay bu rëy nga xam ne fu mu mët si nekk. daf daan yore daara loola lu mu doon ne woon ci woy juróom la. Mamadou Fall yàlla yàlla yokk ay leeram. fu mu mas a nekk dafay sampu daara. di jàng alxuraan di jàngale di dundee di sàkklu leew di ko dundee ngir bañ a ak njabootam bañ a tumurank wala ñu bañ a jaxasoo ak ñeneen mhm. kon loolu ay leer la yoo xam ne waxoon naa naa ko indi mhm. ci histoire bi li tax sëñ Omar Fall bayee ko sa Colobane Sarr ak sëñ Madun mhm. pour dem ànd ak Maba ak kilifa yi nga xam ne ñoo doon woote guerre ngir contre tubaab bi moo waraloon loolu ba ca tegu mooy li mu doon wax ci sunuy wayjur sunu maam sëñ Omar gannaaw bu mu wàcceeb liggéey mu ngi wàcc liggéey mille neuf cent xam nga suñ daara wax ne mu ngi gën a jamono mille huit cent quatre-vingt mhm. mu ngi wàcc liggéey mille neuf cent quarante-neuf ñu denc ko ci Touba Fall bi muy wàcc liggéey booba njaboot gi li ci ëpp ña nga ca daara ya mhm. Cheikh Moustapha booba moom ñëw na mhm. waaye Cheikh Ibrahima ma nga fa woon waaye nag dafa amoon rakkam ji ñuy wax sëñ Babacar Fall. sëñ Babacar Fall mooy sëñ Babacar Fall. mi moo nekk ni ci moom mhm. moo yore njaboot ji. Mhm. saytu leen ñi ci war a dem daara dem daara. ñi ci mot a dugg néeg dem néeg. Mhm. ñi ci mas a toxal yëpp mu moo yoroon liggéey bi. ba njaboot gi màgg nag mu yëkkati xilaafa gi jox leen ne leen seen alali bàyyi ngi noonu. man maa ngi fi toog di leen dimbale. li leen waroon li ma waroon ci yéen def naa ko mu ngi noonu. ndeysaan macha allah bokkoon na ci njaboot gi nag. comme ni ko waxee noonu. ay soxna yu jigéen mm-hmm. bokk na ci bàjjen Buso Faal mm-hmm. bokk na ci njaboot gi tim bàjjen Ndaati Faal mm-hmm. ak soxna Aminata Lo nga xam ne ay njabootam tam ñu ngi fi sunu bàjjen bàjjen Ndaati ñu ngi koy ziyaara mu ngi fii parcelle ak njabootam tam ñu ngi leen di ziyaara muy Alaaji Mbay Njaay bokk na ci tim ñooñu Sëñ War Faal amoon na ku ñuy wax Mouhamad Kewa Faal nga xam ne tey jii xalifaam mooy Alaaji Sëriñ Faal Kër Masaar nga xam ne niñ nekkee ay sët moom tim noonu la nekkee sët Serigne Omar mm-hmm. bokk na ci tim ñoo xam ne dañoo teel a jiitu mm-hmm. tuddewoon na sëñ Basiiru mm-hmm. moom xam nga sëñ Basiiru moom moo doon am féeteem tuddewoon na tim baabu bode amoon na yeneen leer yoo xam ne dañoo jiitu waaye loolu lépp njaboot gi yëpp da ko jëloon delloowaat ko sëñ Touba kon nag loola ay leeral yu ma waxoon naa ko indi mhm. bu ko defee nag ñu soog a ñëwaat ci gàmmu gi macha allah dugg ci Mouhamad Ngaari ak Touba Fall naka la ñuy gàmmoo mhm. ak fan la Touba Fall nekk macha allah jërëjëf jërëjëf mm. Cheikh Moustapha Fall ci leeral yu am solo yooyu sëñ Mouhamed dafa mel ni fukki minute ak juróom moo ñu desee mm-hmm. bu defee ñu ñëw rek ci Touba mm-hmm. fan la nekk exactement koo xamante ne daa nekk ndakaar bëgg dem Touba Fall lu muy def ba agsi fa mm-hmm. ak tamit gàmmu gi naka lañ koy defaree incha allah rabbi jërëjëf euh, Cheikh Abdallah comme ñu cof ci fofu rek. Mhm. Eh, ci nim jaayante ak Sëriñ tuba mhm. bim baye ko waté salum mhm. dem Jurbel ngir jaayante Sëriñ tuba Jurbel la fekki Bamba. dal koy jébal jëmmam je dam defar ko dal koy Jurbel la jébbalee durus fa mbaare ya. ànd ak murid ya. xëy leen jaar xëy jaar jaare. la sax dina fi la kar yorda dam di ko yéege rewna eh, dam di ko raw na def na fardu ci la ànd ak suñ tubaa mhm. euh, ba mu ñëwee jébbalu ànd ak suñ baabu bodee ñëw dellu siwaat ci fam dal mhm. léeg-léeg muy dem di ziare suñ tubaa dellu siwaat di naafi la ak wirda ak zikar ànd ak rakkam bi suñ Babacar Fall fu mu mas a nekk moom la àndal loolu daa daa war a xewaat loolu ca xisaw Yuusuf boo ko jàngee da ngay gis ne mm, mm, mm. doom yu bàyyi xaw a numtuti daa war a xewi daanam ñëpp dañoo war a benn bennoo ndax mission bi benn la mu àndoon ak Babacar Fall rakkam jooju nga xam ne am njàng mu rëy rëy rëy la buñ ñëwaan ànd ak moom dem suñu tuwaa ziar ji buñ ñëwee mu nekk ci ay yëf suñ Babacar Fall dem wuti dem wuti ay xewal ñu daan def noonu ba nga xam ne léeg-léeg da daan suñ tubaa daan na ko woo mu ñëw ñu waxtaan déyante moo tax bo borom bi nga dégg mu ne suñ tubaa mos na ko woo benn bis ma daam ne ko kaayit ba bi mu nekkee foofu ay jëmmi jamono nag ci la ko suñ tubaab wax ne ko Omar mu ne ko ah mu ne ko léegi damaa bëgg ñëw dellu ca doon sa wayjur mhm. soo demee nga liggéey ma fa sàkko fa saa ngërëm bu la sa wayjur gërëmee gërëm naa la mhm. Cheikh Omar Fall daal di takkuwaat nag dellu fa saa ba muy dem nag dafa fekkoon mu yeewi soxna ya mhm. bi muy dem suñ tubaab mm. daf ne comme damay wuti ngërëm te xaw ma kañ laa koy am mm. te ngërëm lii ma gën a lépp mm. damay wan gannaaw lépp allahu akbar ci la yeewi soxna ya yeewi dongee tas kër ga ñu ne kii daa comme li waxoon suñu tubaab rek xaalu safihun di sarfi anu basiru fekk moom gis na leen lu bokkut ak loola mhm. eh, nga xam ne la muy wuti wóor na ko ne su amee lépp mhm. dana ko yomb ndax mhm. euh, ni suñ bay jaax di wax ne euh, ka soxna ak njël di jaaxal kooku bokk na man man Babacar la ma jaaxal kay du soxna du njël fan yu jëlee mbaax amay jaaxal te moom ma sonal moo tee sama xel a dal moo tee sama fit a dal mm-hmm. soxna ak njël jëfewul koo seero am na ko tey mm-hmm. ak mbaaxataa am te ak mbaaxay jëriñ di musal mm-hmm. Cheikh Omar Fall xam loola nag mu ne na wan gannaaw lépp dem wuti ngërëm bu amee ngërëm ni ni sëñ Moussa ko wax ne ku ciital ngërëm mam day loola neex laaj da ngay seetu di ceebuy naloo puuj faay Cheikh Omar Fall loolu xamoon moo tax mu ne na bàyyi lépp bu amee ngërëm suñu tubaab lépp daal di ñëw euh, gan ci la ñëw nag nekk ci roon way Euh, daan daam ne ko kaay dellu faroon sa wéjur sàkku fa saa ngërëm te sàmm sëb cër mhm. mu daal di takkuwaat faroon baayam ba di ko jëfal ci ndigalal Cheikh Bamba na Cheikh Ibrahima Fall waxoon ne man bi muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñetti at laa ko liggéeyal mhm. waaye ñetti at yi menn at mu nekk fukki at la waroon a waaye sama pëstéef ak sama pas ak sama dogu moo tax ma lem ko li Sëriñ Tuubaa waxoon ne tawaytu tariqal xawmi waxtu ci daaxe lu gaari dox weer man ci bis daa koy dox mhm. li ñuy dox at ma di ko dox ci mhm. euh, ba mu ñëwee ñetti at la liggéeyal way juróom way juróom yëg ne kii daal liggéeyal na ko liggéeyal boo xam ne moom su amoon li Sëriñ Tuubaa def ci ñam yi big ci ñoom woy juróom ne ko maa koy def ci waaye comme amu ko suñ tubaa ko am kaay dem boo demee mu def ko ci yow bind lettre jox ko mu yóbbul mu yóbbul ko suñ tubaa mm-hmm. bi mu demee nag sëriñ suñ tubaa euh, yër leetar ba ni ko wala fak di waxe sëriñ ma doon gërëm na Cheikh Omar Fall mm-hmm. ca mooma at ngërëm la dolli koy leer mm-hmm. keroog la naa su ma amoon la bàmba am danaa la jox la muy defal ñi muy gërëm euh, bisub keroog la la bàyyi ba bind leetar jox ko mu jox Cheikh Bamba doy na tiitar ba mu demee suñ tubaa yër leetar ba xam ne kii kat woy juróom li mu bind ci lettre bi nekkate li ma ko santoon lépp defoon na ko waaye moom it damay wax ne même ba muy nekk ci daara ji sax boo gisee coono bi bi mu doon jànkuwanteeg comme ni ma ko waxee ci gannaaw mhm. ku sonn da nga nit mhm. dafa xamoon ne kii mooy woy juróom mhm. kon ab coono war na ci moom waaye kii mooy comme war na koo sonal ndax euh, da ngay da ngay gis ne ñu suñu tubaab waxee dañuy wax ne ñett liggéey leen du gàcce mooy wayjur mhm. liggéeyal sa wayjur bañ bañ naan dafa ñàkk fa dafa ñàkk fulla dafa ñàkk fayda mhm. kenn waru koo dégg la waaye liggéeyal sa gan mhm. loolu it kenn waru ko rus waaye liggéeyal sa sëriñ it kenn waru ko rus la kon ñetti yooyu kenn waru cee xool wax waxi nit ci la nag daal di euh, dem suñ tubaab ba mu demee nag suñ tubaab ba mu yiree leetar bi nag ci la ko daal di seexal euh, daal di koy tofal na muy def loolu nga xam ne kum ko mm. defal ñëpp dëkk ci yow te duñ fa mos a jóg ci àdduna gannaaw bi nag ci la dem Saalum di gàmm dem ak ñëw mm-hmm. ba gàmm 1915 ci la ko mm-hmm. suñ tubaab ne ko Omar mu ne ko mu ne ko fi ngay jógee sori na mm-hmm. te mbooloo mi bari na mhm. te yoon wi métti na mhm. te yoon sansam ñëpp a ko bokk mhm. am nga ndigalal gàmm léegi boo demee del dundal gàmm ga fa nga nekk yaa sa njaboot am na ndigal ci gàmm moo njaboot ga te fa mu dëkk ñi ko war a njaboot ga wa naa la zikra mawlidi rasuli fii dal sa sin min xaadimi njëkk gàmm jookaa di santakay sikkat di berneel jookaa gannaaw ba nag ci la ñëw dem jookaa ca réewi gàmm yi bi mu ñëwee nag foofu la njëkk a taxawal bis ba di ko di ko gàmm di ko defee no am solo nga xam ne comme booba xasi xasida yi yaatooguñu mhm. boobu bëreeguñu mhm. waaye li suñu tubaab tënk ci xasida yi tama wax la ko ci gannaaw rek loolu la fa nekkee woon mooy di wax laa ilaha illallah mhm. waaye di julli ci alayhi salaatu wasalaam di wax salaamun qawlan min rabbi rahim di ko fanaanee ba bët set moom ak mbooloom ak ay nitam waaye bu gàmmuwaan ba bët set nag daan ànd ak mbooloo mi ak lam fa jëlee yëpp yóbbul Sëñ Tuubaa nga xam ne moom euh, yoon Sëñ Tuubaa bi ñu ko seexalee daf ko ne yooni ziyaar yi moom na mel ni xorondom mm-hmm. te gàmmu moom dee ko defee fa say doom moo taxoon moom daraan baagante saa su ne dañ ñu nekk sax ne def ne euh, saa su weer xëyaan mu xëy saa su weer xëyaan mu xëy dem ziyaar yi Sëriñ Tuubaa te boo daan dem lu gàtt-gàtt da nga def ñaari fan dox dem booy ñëw lu gàtt-gàtt nga def ñaari fan ñëw wax nañ ne bis dafa waaj ba jekk war a dem ziyaar yi Sëriñ Tuubaa mm-hmm. yàlla di xëy taw muy taw ceebo mm-hmm. nga xam ne mooy nga xam ne baykat yëpp bay moo leen gënal ñu bari de bari na mm-hmm. baykat yoo xam ne bu ceebo xasee am mm-hmm. loo baax baax ñu la fonk fonk fa lañ la naan ñukk nekk seen bopp ba seen xel dal ñu a def moom nag bi ne kee ma jëm ndax moo gën ceebo ci man ci la nag daal di takk nag dem ñu ne ko yow daal da ngay font yor sa kër gi yor sa njaboot gi yaa ngi fi def li nga fi defoon nit ñi di la wax pareeguñ ceebo bi ñëw nga bëgg fee bàyyi di tumuranke sa waa kër mu dem rek daal di dem ba mu ñëwee suñ tubaa suñ tubaa xam na lépp mu ne ko ah Omar nu ngeen def Mm-hmm. mu ne ko ah waaw ma ma fa jógee de taw nam ceebu mm-hmm. mu ne ko ah mu ne ko waaw léegi nag Sëriñ ci la ko jox am pepp mm-hmm. bu ñëwee ji ko korog euh, at moom dafa moo mujj ji waaye yàlla dogal na mu am ca loo xam ne dafa góob a góob a mu ba mënu koo jeexal moo tundoo ñëpp góob ba mënuñ ko jeexal ba mujj ne wax nañ ne benn daay moo fa jaar lakk ko yi fi jeex nga xam ne kon diggam ak Sëriñ Tuubaa na yoo xam ne yoo xam ne xewoon na ci waaye noonu la ko yàlla mayewoon it mu mu am yu bare bari ci ci ci ay may ndax bu ñu mm-hmm. xoolee mm-hmm. moom dafa bëggoon dafa bëggoon alxuraan dafa am ku ñuy wax sëñ Malla Dramé mm-hmm. ab sëñ daar loon bu nekkoon ci moom loolu it njaboot gi dañ ko cooree man sa mooy juru góor daraan def ku ñu sëñ daara bu daan jàngale ci dëkk bi ndax comme moom dafa amoon na daara yu fa nekkoon yàlla dogal daara ji génn léegi daara joo xam ne dëkk bi yëpp ci jàng sa mooy juru moo ko yilifoon waaye daraan def ba nii nii sax jamono mi mujj yi ku fa mas di jàngale boo laajee avance dalay jox xam nga dañ naan la at mi nangam lañ lay fay. Mhm. léegi-léegi nga am soxla laaj. Mhm. waaye soo laajee su at mi jeexee danaan la li nga jotoon a jël avance may naa la ko. soo ko jël li ngeen waxante woon nag ci at mi jox la ko boole ko ay saako yu yooyu ku mos a yor doomam ci mu jàng xam nga ne ay xéwal mos a dakk ci diggante ci diggante ak moom waaye noonu Cheikh Omar Fall ci la ko royee ndax Cheikh Omar mhm. Fall Serigne Malla Dramé daa nekkoon ci moom di jàngale wooy juróom di ku ñu wax Samba Raxi dëkk kër Samba Raxi bi yàlla dogalee Serigne Samba moom wàccub liggéey ah ay bokkam ñëw daal di ne ko nag nit suñu koy wax nag manam comme lima waxon ci gannaaw bu nit di soxla dom mhm. bi sa tax wala tële mhm. comme moy juróom ñëkkatu fi nak dañoo bëggoon nga jox ñu mu dem mu mhm. neen ah nitub alcorane la de te man de nitub alxuraan awuma ci mom sago su toxto nak nekk ngeen nek ay bokkam ak li ngeen tek sama loxale leen kon dama koy téye waye nak comme li ngeen wax kon bismillah wax nañ ne bis bu set daan tibbu bol diko jox talib muy dem ci dekk bi diko yob baye ko dekk dekk ngir fonk alcorane ak nit ngir fonk nitu alcorane bis tam xar dafa jot mu tibbal ko reer yalla dogal yefi lendeum yoonu jafé jafe ah léeg-léeg kum ne kaay yóbbu ko ci dong yi rek nga xaw a num turati mhm. benn dongam bu ñuy wax Omar Kata Sall mhm. ne ko nekkoon jarbaat ci moom ne ko nijaay ni mu yóbbu mhm. bi mu xuusee lëndëm ngir dem wax nañ ne bi mu génnee rek dafa am leer goo xam ne danaan tay ci kanamam di ko leeral mu ànd ak moom ci yoon yi bu dee ba jub dëkk leer du gisat leer gi bu génne dëkk ànd ak leer ga noonu la demee dahaban wa iyaaban nga xam ne loolu it di kiimaan yoo xam ne yàlla defaloon na ko ak Cheikh Omar Fall waaye boo xoolee bi muy wàcc liggéey it noonu la mm-hmm. defoon ndax dafa woo rakkam ji Cheikh mm-hmm. Babacar Fall mm-hmm. euh, fekk sax laata loolu daf doon moom ku mënoon a tarbiya la daan def rakkam jooju da ko tarbiya tarbiya lu yàgg yàgg yàgg ak tarbiya yu metti nga xam ne même café yii sax bu xelliwaan daan jox nit ñi moom day xelli kaas boo xam ne da ko suukar jox ko suñu bis nag moo ñenn ci magi dëkk bi ak jarbaate yooyu def ay kii rek comme ni jotaayu murid di mel. Mm-hmm. xelli kafe xelli kafe xelli ba xelli kafe jox ki ñuy wax suñu Ousmane Dieng. Mm-hmm. mu xewlu ne ko ah yow nijaay kaas bi amul suukar di. Mm-hmm. mu ne ah yow de kaas boobu la Babacar Fall daan naan bis bi set. daaw mos ta am suukar te mosu ko jàmbat. ne ko Babacar sa kaas bi mel. mu ne ko saf na sàppa suukar mhm. mu ne ko dafa am lu ma si jublu mhm. dama leen a bëgg seeral ni sëñ Babacar faal mii lu doon naqari ci dundam jeex na tey des ci dundam lépp day neex te yow man xam lay dàq nga xam ne loolu yi daan na ko feejal ba ba muy wàcc ci liggéey sax dafa dafa woo sëñ Babacar mu ñëw mhm. mu ne ko Babacar mu ne ko ah mu ne ko demal ca xar ya mm-hmm. Mm-hmm. ndax ndax su moom Cheikh Omar Fall ab baykat loolu lépp lu ñu dund daanaka dafa daan bay mm-hmm. bu ko bayaan nag dafa def ñaari sàq benn mu tuddee ko alhamdulilah benn mu tuddee ko waajuram soxna Faama Jaxate benn bi bu nit ñi formankoo moo leen ñoom ñëpp ñëw siddoo ko muy xewul yu bëree bëri beneen bi mu denc ko bu demee ba nit ñi tumuraanke buntu newal ba soxla ay xewal moo leen ñëw hmm. mu siddal leen xam ne moom ku ku yàgg def li ñuy wax social la ku ko hmm. yàgg def la mu woo Cheikh Babacar Fall mu ñëw mu ne ko demal ca xar ya hmm. nga lewetal ca loo xam ne dëkk bi yëpp danañ ci mën a njëlu njëlu mooy kenn ku ne nga jox lañ ci dépense mu ne demal nga nga natt la neen nit maanaam ci ay cere yu demee noonu dugub jox leen ne leen nañ ko waajal nag balaa guddi digee sori ndekete yooyu boobu dafa doon tàggoo xéewal yooyu waa dëkk ba defar hmm. biñu demee bay tëdd ci lañ yëgle nag Cheikh Omar Fall wàcc na liggéey ñu joxe xibaar bi mboolem ñu ñëwoon ci dëj ba ci xewle yu Cheikh Omar Fall joxal waa dëkk ba ci lañ xew yoo xam ne it tabaarkallaa ak yeneen yu bare bare jaar na ci digg mag ñu macha allah jërëjëf Cheikh Mouhamed Ngari Fall waxtaan wi am na solo lool doylu ñu waaye nag waxtu wi moo ñu tënk bu defee sëñ Moustapha ñu jox la rek nga tàggatoo ñu dox cëriñ bi ñu ñaan yëkkati jotaay ba beneen jamono incha allahu rabbi kon bu ko defee rek ñu fàttali li nga xamante ne mooy programme bi rek incha allahu rabbi. Mhm. waaw jërëjëf Mouhamad Ngaari taxoon ñi indi ko fi wax dëgg yàlla. Mhm. Mhm. tabaarkàlla dëgg la waaw. ñu ngi lay sant yow tamit bu baax. di ñaan suñu borom nangu liggéey bi te gërëm ko. di ñaan tamit ñu fekkee gàmmu gi. te jékku ndigal li lool. di ñaanal mboolem kilifa yi nga xam ne ñooy kilifay Touba suñu borom yàggal leen fi te wéral leen waaye daayira bi nga xam ne mooy daayatu saalihina Touba Fall nga xam ne mm-hmm. liggéeyu gàmm gi mm-hmm. ak liggéeyu si xamar Fall li ci ëpp ci seen loxo la nekk mm-hmm. ñi ngi ñaan suñu borom dëgëral leen te kàtt leen ñi nga xam ne ñoo nekk Touba Fall siège ba xam ne ñoo njiital daayira ba ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ak ñi nekk Dakar gépp ñu ngi leen di ñaanal fanu gudd waxand ak wér-gu-yaram daayatu na boobu nag ñi nga xam ne ñoo tax ñu ñëw fii dañuy bëgg tudd ay quelques kilifa mhm. nayu leen mhm. ku mel ni Baye Cheikh Fall mhm. sëñ Babacar Fall mii nga xam ne waxtaani toujours day ñëw ci moom ki nga xam ne mooy xalifaam tey mooy Baye Cheikh Fall mu ngi fii parcelle ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara moom kenn la ci njiitu daayira bi day day wax toujours ne man dama àndoon ak seeni baay liggéeyal ko waaye nag xam naa ne liggéeyal Cheikh Fall duñ ci wàcc duñ toll nii mooy bàyyi ci ñun waaye lépp lu ñuy def mooy nekk ca kanam mhm. ñu ngi koy ziyaare di ñaan suñu boroom yàggal ko fi te dolli ko ay xéewal di ñaanal ak njabootam tamit di ziyaare tamit sëñ Omar Ndiaye mi nga xam ne mhm. lépp lu ñuy def ci mhm. daayatu saalina këram mooy siège social bi ak sëñ Badiane ñu ngi koy ziyaare moom ti bu baax ak sëñ Moustapha sekk ak sëñ Omar Kata Sall ak sëñ Kéba Tall ñi nga xamante ne lépp lu ay cutuwaa faal ñu tuddee ñooñu ñëpp dañ ci duggaale ñu ngi ziyaare tamit bu baax sunu mag Mm-hmm. alaaji Malick Fall mm-hmm. nga xam ne mm-hmm. njaboot ak alaaji Serigne Fall gi moo ci mag tey nga xam ne ma nga fële Sandaga bokk ak ñeen waar ci liggéey ba ñu ngi koy ziyaar di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di ziyaare mbooleem koo xam ne mu ngi dégg suñu kàddu waaye nag di woote waale ci bés bi buñ ne plateau spécial pour gàmmu Touba Fall mhm. mbooleem lu aju ci Touba Fall góor ak jigéen mhm. mbooleem soppe ak xarit mhm. mboolem mbooleem lu soqeekoo ci Touba Fall buñ ko waxee nag mooy lépp loo xam ne askanu paaleel la wala lépp loo xam ne dañ koy tudd di tudd Touba Fall mhm. képp koo xam ne bayekoo na fa mhm. xam fu mu nekk di liggéey lislaam mhm. ci ak njaboot nga xam ne sëye ko fa yóbbu wala leneen ko fa yóbbu ñu ngi leen woo ci bés bi inchallah muy bés boo xam ne bés bu rëy a rëy la Touba Fall amuñ lenn lu ñuy woote wala lu ñuy demlante aw nit lu gën a rëy gàmmu inchallah ñu ngi ciy woo ñëpp waaye nag di ci jiital nag kilifaay mbàkke mbàkke yi ëllu mbàkk nga xam ne mu ñooy waa kër Cheikh Mouhamadul Mountakha mhm. ak waa kër sëñ Basiru yi ñu ngi leen ciy woo mhm. ñoom ñëpp ci bis ba mhm. ñu ngi ciy wootim bu baax mbooleem seex yi nga xam ne dañoo séq ak ñoom liggéeyu sëñ Basiru bi ca Saalum duñ ci tudd kenn waaye buñ ne mbooleem seex yi rek ak mbooleem autorité yi autorité gouvernementale yi autorité religieuses yi ñëpp ñu ngi leen ciy woo dañ ciy jiital nag maire Babacar Diop mi nga xam ne moo gën a sës ci ñun nga xam ne luñ xewle moom dana ca teew ñu ngi gërëm tim bu baax maire Jimba Ndaw mi nga xam ne nekkoon na fa ak mbooleem kilifa yi nga xam ne nekkoon nañ fa ay maire mm-hmm. mbooleem koo xam ne daam Touba Fall la nekk mm-hmm. ñu ngi lay mobiliser ci bés bi mm-hmm. ak mbooleem ñi nga xam ne daayiratu saalihina bi dañ daan ànd ak ñoom ci liggéey ba Touba Fall yàlla daf ko def mu nekk ci diggante dëkk yoo xam ne sëñ Moustapha Bassirou daf ko defoon muy centre su amaan liggéey Touba Fall la daan woote tool sëriñ bi ba mu ko sampee Touba Fall da ne du samp beneen tool mu tolloog moom na kilifa yëpp ñu nekk ci tund woo di ànd ak sëñ Babacar Fall ci liggéey ba kon ñu ngi leen di woo ci mhm. gàmm gi mhm. mbooleem lu ay ci daayatu saan tund woo yëpp ñu ngi lay woo mhm. góor ak jigéen di woote mbooleem taalibe sëñ Omar Fall taalibe sëñ Omar Fall fu ñu mënti nekk waaye rawat na ñi nga xam ne dañ leen a baaxoo gis ñi ànd ak suñuy bàyyi ànd ak suñuy maam mhm. duñ ci tudd ñenn mhm. waaye woo nañ ñëpp bayuñ kenn mhm. ñu ngi woon ak ñi nga xam ne dañuy jëflante ak ñoom lu gën a bëri rawat na ñun ñu nekk Dakar mboolem koo xam ne aju na si daayatu saali na ñu ngi leen di woo ci suñ gàmmu gi mboolem loo xam ne xamaale la duñ tudd benn quartier waaye mboolem diaspora bi ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne bis bu rëy a rëy la programme bi nag nii lay demee buñ xëyee 9 heures jàng kaamil ba treize heures mhm. incha allah bu treize heures jotee mhm. ñi daal di pause dem xewlu mhm. bu seize heures jotee conférence bi commencé ko bu ñu demee ba 19h. ñu def mhm. cérémonie officielle bi. 22h mhm. kuréel xasida yi commencé bu bët set. macha allah sëñ Modou mhm. mooy nga xam ne mooy fanaane guddi gi. ak kuréelu na yëpp. kon nag ñu ngi woo ñëpp. macha allah sant ñëpp. alhamdulilah macha allah waaleykum salaam jërëjëf Cheikh Moustapha sëñ Mouhamed Ngari benn minute rek moo des. waaw jërëjëf Cheikh Abdou macha allah di yu am solo Cheikh Moustapha uh-huh. yëkkati ko. Uh-huh. Eh, waaye lépp rek hmm. jëfe gi day lu am solo ndax gàmm am na solo hmm. waaye ndigal li suñ tubaa joxe it hmm. la neen la dëgg la yaakaar naa bëri na bis yi bis yi bëri na ci yoon yi waaye bis bi suñ tubaa joxe ndigal li loolu nag bëriwu ci nag kon noo ngi woo ñëpp su ko defee nu ñëw ànd ko rek te xam ne eh, lenn lu ëpp solo ci kaw suuf jéem a dàkk bëgg yàlla amul te yàlla comme moom nee mbégte yëpp mhm. bégee alayhi salaatu wasalaam moo ci gën mhm. kon nu ngi woo ñëpp ci mbég mhm. moom nga xam ne yàlla dogal na yàgg nañ koo amal cent dixième édition ci ren kon bis nag boo koy def cent dixième édition yaakaar naa léegi nga xaw koo kon bisimilah ñu ngi ci woo ñëpp ay thèmes yu solo incha allah dana fa jib soob yàlla macha allah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Mouhamed Ngari Fall jërëjëf Cheikh Moustapha Fall waaye tamit jërëjëf mbooleem ñi nga xamante ne ñu doon topp jotaay bi ñu ngi ci lim sëriñ Alaaji Fall sëriñ Mouhamed Ndiaye sëriñ Birahim Jaari Fall macha allah soxna Fatou Cissé sëriñ maam Cheikh Ndiaye sëriñ Jaari Dieye ak mbooleem ñi nga xamante ne ñoon topp jotaay bi yëpp am nañu mbégte ak kontaante di ñaan suñu borom dafa leen tawfeex ak teysir di ziare ñi nga xamante ne ñoo nekk régi ku mel ni Demba sëñ Mamour Cheikh Cheikh Amadou Bamba Cheikh Amadou Fadal mi nga xamante ne moo nekkoon ci caméra yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp dox daje incha allah ba beneen jamono ci waxtu wi. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barakaatu على مقيم السنة مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وليم به باطل من أحمد لم يروني مكابدون